c'est ridicule c'est des infractions infamantes yoo xamante ne on le fait parce que tout simplement yàpp sax Ousmane Sonko la yàpp sénégalais yi xam nga am na loo xamante ne lu nu fàng kenn du ko jeex dama ne am na loo xamante ne bu ñu koy doxalee fii Sénégal mooy wàcc nañu yoon nekkatuñu si terrain yoon moo taxoon ma la doon wax début bi ne la Ousmane Sonko dans ce cas de figure dama koy défendre sans lien cédé parce que nit su fekkee ne dañu ko bëgg a effacer nag au mépris de la loi de tout ce que l'on ñi am fulla comme ni ko maam Abdou Aziz doon waxee yàlla na yàq loolu yàlla yàlla yokk leeram ne nit su amee fulla ba li ngeen bokk mu bëgg koo yàq da ngay am fulla yow tamit ba taxaw ni ko doo ko fi yàqee. alors léegi loolu moom moo motiver euh, sa posture. non xam nga man sama posture et la toujours été constant nee naa la nii laa taxawee ci Karim Wade nii laa taxawee ci Khalifa Sall nii laay taxawee ci Ousmane Sonko suba bu doon Macky Sall nii laay taxawee ak moom ak bu doon quelqu'un donc bu ma sa euh, changé man ñi ma xam may mun a ñi ma xam nii la ñu ma xamee du ma mus a changé gis nga Ousmane Sonko mii du ma wax lu ko neex toog naa te télé ni la Ousmane ni ni leen Ousmane Sonko moomuñu Ousmane Sonko su toogee su ma nee nguuda su waxee dañuy waxtaan muy nit koo xam ne il est très très très réfléchi très à soo ko waxee danaa la d'accord su su soo ko convaincre soo ko convaincreul mu ne la ah man ma de mais demal nga convaincre waat ma nga nga ñëw et c'est quelqu'un koo xamante ni dafa bëgg réew mi su ma koy tuddee l'envol du phénix nit ñi di wax ma ne leen c'est parce que ci ay waxam laa ko jëlee Macky Sall je l'ai dénommé lance lanceur d'archi moo ko bind ci livre am le président Ablaye Wade ma ne c'est un joueur de billard le président Abdou Diouf moo ne il aime jouer parce que le président Wade il n'a pas peur de perdre et c'est des donc yu ma leen jox pour di leen qualifier pour wane ñoom seen taxawaay noonu la mel le PDS bi ma koy qualifié wax naa ni au PDS il y a trois écoles l' école Wadis l' école du Soppi et l' école des dama ciy discuter ak ñoom ñuy waxtaan ma leen di laaj cest à loolu mooy Sénégal mais tey mu mënuñoo jàpp ko mel ne Ousmane Sonko muy un patriote convaincu ñu koy teg li ñu koy teg. teguñu ko ci euh, yoon teguñu ko ci may démocratie. Maymuna dama bëgg ñu xam ni bu ñu tollee fenn gis nga dans l' affaire Dreyfus la France était divisée entre Dreyfusards et anti gis nga dans l' affaire Drescos l'Amérique était divisée entre esclavagistes et anti gis nga Sénégal ñun réew mi dañu fi bëgg cohésion nationale man loolu lay jàngale Maïmouna la nation l'idée de nation. xam nga lu ko tas. le pays est c'est fracturé. lan moo fracturé pays bi. mooy parce que ñi nga xamante ne ñoom la ñu jox lenge mais tey jii nii taxawaay bi ñu waroon taxaw mais dañ ko taxawul mais yow mën nga chaque fois bu ñu tëbee bu amee décision judiciaire sax ñu naan Ousmane Sonko ah est-ce que dinañ dina bokk wala du bokk e juste que tey jii nii da ngay gis le ministre de la justice taxaw ne moom envoyé naa la sànq le mémorandum euh, le livre blanc du gouvernement demal nga à la page 4 ñu ne Ousmane Sonko a été condamné par contumace virgule c'est-à-dire par défaut xam nga loolu dafa la condamnation par contumace n'est pas une condamnation par défaut te pourtant état du Sénégal moo bind livre blanc man parfois damay lire loolu damay toog damay reetaan je suis inquiet pourquoi je inquiet parce que dama nekk ci état boo xamante ne man li ma gëm man dama daan toog ne man dëkk bu am dictature du ma fa dem man toog naa dëkk yu bëri ñu bëgg ma fa yóbbu mission ma ni ne demuma parce que damaa gëm li may xeex léegi nag suñu nekkee nag Sénégal ñu nekk ay ndaw am ay référence xam ni lu ne mën na manqué dëkk bi mun na am jafe-jafe et cetera mais nit ñi war nañu mën a am seen liberté pour exprimer wu mais loolu dañ leen xañ kon donc suñuy wax ay hymne national ak et cetera yépp mu am ay atteinte dañu koy mettre dans un contexte ah, ba bi ci des ñu am un régime anti-intellectuel soo amee ñu mel ni ay ñoom professeur Serigne jóg ñu mel ni ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di ay référence ci ci réew mi jël seen xalima bind ñooñu da nga war a liir ni en ah, attention pour vous élever au-dessus de la mêlée mais du dañuy jël mille personnes pour répondre leen lan la servir ça prouve d'ailleurs que ñoom posture bi ñu jël moom mooy posture valable xam nga la moo tax parce que su ñu demee dans un état ba mu am division comme ni nga ko waxee dañu war a xool nu ñu maanaam penser les plaies gis nga ñun dañu daan wax toujours te man dama ko daan liir ci Hubert Fiodoras di ko lire ci Bakary Traoré ak ku mu mënti doon suñuy wax l'idée de nation ba egsi ci Sénégal en Afrique dañu ni c'est un pays référence pourquoi parce que l'appel à la nation ne se fait pas sur la base du clan ni de l'ethnie encore moins de la religion parce que nous sommes un pays soudé parce que am na valeur yu ñuy gëm loo xam ni li nga nangu di nga ko nangul sa morom mais tey boo jëlee parti bu mel ni Pastef. la nation reste intacte. non c'est pas parce qu'on a dissous Pastef que la nation. mais yow yaa ah, yow yaa yow yaa fii dañoo diviser. non le pays est politiquement hmm. fracturé. yow yaa ma ni dañoo diviser wu ba pare nga ne la nation la nation ma ne la la notion de may mun a da ngay continuer sa bopp parce que yow yaa ma reste intacte xam nga non waxuma tu waxuma ni la pire waxuma la ah. ni suñu nation dem na ah. naax na mais dama ne la mi ngi yëngatu li ko yëngal xam nga ko man xam naa ko mu ngi yëngatu à cause d'hommes politiques irresponsables. non loolu man sa sa sa sa responsabilité. commencé di mettre en avant. sa responsabilité la seen ethnie ñu commencé di stigmatiser des partis. euh, du, du du territoire national euh, ñu commencé di remettre en question euh, li nga xam ne moom mooy le soubassement euh, de notre stabilité muy moo def religieuse mais c'est de part et d'autre non attends ku waxal dëgg non Maïmouna ku waxal dëgg c'est de part et d'autre Maïmouna Maïmouna yow toog nga yow toog nga rendu coupable de ce type bàyyi ma wax Maïmouna may toogal Maïmouna ah. yow toog nga yow Ousmane Sonko en 2019 yaa nga fa woon muy présenté wu di présenter livre ak vision am ñu koy laaj ndax say jabar day muuru et cetera yaa ngi foowoon. te moom rek lañ ko fiy laaj duñ ko fi laaj beneen acteur politique wax na ko te muy dëgg. kon xam nga ni kooku kon moom la ñuy stigmatiser. ma ñëw non la liberté de culte est personnelle. non waaw très bien. elle est très bien kon nit ñi amuñu tey di ci dugg ba koy laaj ndax say jabar dañuy muuroog yow da nga sa da ngay guddal loolu lu ci seen yoon. yow kon yow yaa ngi dëggal li may wax. beneen bi ci topp inquisition non mais mais non mais attends Maymuna ah. dafa am loo xamante ne boo koy laaj man du ma dugg sa métier. li ma gëm mooy boobu un aspect la beneen aspect bi ci topp mooy combien de gens ñoo taxaw ni Ousmane Sonko du fi mës a nekk président de la République di ko wax ni ñaata nit ñoo ñëw tey jii nii combien de mesures la ñu jël contre n'est-ce pas. Euh, euh, voilà man du ma bëgg wax sax yéen contre kan. xam nga. xam na loo xam ne non déglu rek am na loo xam ne par pudeur man du ma ci bëgg a yegg. combien de mesures la ñu jël. contre non non déglu rek combien de mesures la ñu jël tey Ousmane Sonko laay wax ma yam ci moom combien de mesures la ñu jël contre moom restrictive de liberté barricade këram pendant cinquante cinq jours sans droit ni titre ñu ñuy wax ay raisons d'état ay nit di ko justifier sur des plateaux. ma ne leen Adolf Hitler bu muy jël le pouvoir lii lañ doon wax am ay constitutionnaliste am am lépp maréchal Pétain bu muy def loolu France loolu la dugal nous sommes dans une république si nous sommes dans un état de droit gëm ko dañu war a mooñe loolu suñu bopp gis nga may mun a man yow xam nga li may wax c'est pas parce que nit ñi dañuy teg nit ñi lenn nag nit ñi toog di ko nangu mënul nekk dans ce figure posture yi day changer xam nga lan moo koy changer contexte man li ma wax lépp ci Ousmane Sonko dañ ko ko teg ak parteem bu amul nee ma factuellement amul beneen bi ci topp mooy bu fekkee nekk nañ dans un jeu politique comme ça mais mooy li ma lay wax nee naa la lu président de la république am na taxawaay boo xamante ne waroon na ko taxaw man yàgg naa taxaw di ko wax parce que ñun nekkuñu ci yenn posture yi nous nous nous situons au-dessus de la mêlée te le président de la république c'est un juge au-dessus des te dama jàpp ne ces deux mandats amoon na lu bari loo xamante ni mënoon na ko ci defar defu ko ci te gëm naa ni bu bu ñu bu ñu bu ñu deful ndànk mooy ñun ñooy tooñ suñu bopp ci lu bari parce que Sénégal kat am na loo xamante ni bu ñu koy liggéey ba mu yegg si fii dafa am ñoo xam ne ñoo ko def Ousmane Sonko nag li tax ma koy tudd lu tax may wax ci moom parce que moom laa xam parce que ci laay liggéey. wante non non non non may mun a may ma rek une seconde ma wax la c'est pas parce que ñun dañuy wax lu jëm ci moom. wala lu jëm ci partem que dañuy leen di favoriser. non mais dañuy wax loo xamante ni nii. c'est dans la symbolique. dans la symbolique c'est pour la postérité xam nga la moo tax parce que suba moo tax bu suba am na lu ñuy teg Ousmane Sonko moom ci boppam même bu fi nekkee président moom munu ko parce que am na ñu ko xeex moo tax ñi nga xam ne su suñuy doyen lañ ñiy dekk suñuy collègue jël seen plume. bind dénoncer loolu à travers nest pas benn pétition man dama koy saluer